الحمد الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ها نحن اليوم في مسجد ناصر الحق بالحق اسما في هذه البقعة المباركة في حي المهدي بمدينة دكار عاصمة السنغال Eh, sang bi ñu ngi nuyu bu baaxa baax imam mom mi mo jangal sama taw eh, maa ngi wax ni ko mënuma laa fay maharijul huruf bi nga def ci mom bi ma ko koy jox ñenti at la am munul sax wax wax bu yegg waye daj na ci lu nekk muy Sidi Ahmed tabarakallahu di nuyu bu baaxa baax ñi nga xamni ñom lañu la jox legi ñu wara présenter walu français bi yakana vie la papis papis mom moy ñew legi présenter walu français bi waye mu ngi dend ak sunu xarit sunu lepp sama xarit boo ko déggee mooy koy xamant koo xamanteel ci mbaax rek sa xarit la te mooy guy gi zos mu ngi nii toog nekk nit ku baax nga xamante ni lépp lu mu gis ci àll bi ci réewi nasaraan yi muy développement wu réew dafa jàpp ni ci réewam la gën a jekk ba tax na jël na mbubbam ma mu doon njëkk a sol waxuma bàyyi na ko waaye wàññi na ko ngir daw intérêt personnel bi mu nekkoon daan ko def ndox loolu intérêt personnel am la woon waaye dafa xaaj yére boobu toftal ci intérêt général te mooy bëgg réew mi avancé ñun ñaa ngi koy bàyyi xel ndax képp kuy dund di nga def jëfi kuy dund ndax kenn jëlul ceebu jën di ko yóbbul ñu tëdd ci almeeri moom mu ngi dund waaye mu ngi def jëfi ñuy dund mu ngi dem à l'extérieur mu ngi xool fu développement nekk rek ñas mu ngi koy indi ci réew mi ngir partager ko ak waa réew mi ñi mayee deret ak yépp mu ngi ci participer lu mu mën loolu nag bu koy def ñëw ci jotaay bu mel ne ni tegtal na ni doomi jullit la à savoir notre vénéré cher Cheikh Ahmed Tidjane Sharif à savoir notre Cheikh Cheikh Al-Islam El Ibrahim Nias. Nous saluons de passage toute l'audience et, saluons spécialement Imam Mohamed Nias, qui est l'auteur de cet événement, qui, est, qui est une référence pour le Sénégal et pour l'Afrique, qui ne cesse d'œuvrer pour l'émancipation de l'islam, qui ne cesse d'œuvrer pour l'éducation de l'islam, de la charia et de tous les adeptes, en tout cas pour que la jeunesse puisse être imprégnée, qui ne cesse d'œuvrer pour l'union et la cordialité entre les différentes familles religieuses. Et en tout cas, c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Euh, juste pour dire que nous sommes accompagnés par notre ami euh, Salungom d'Isos, en tout cas qui, est aussi, qui un très, grand ami de Imam Mohamed Nias, euh, parce qu'ils partagent ensemble la même vision de l'humanité cette vision qui doit rassembler, cette vision qui doit unir et aider son prochain. Dans ce sens, il est depuis plusieurs années actif dans le projet Arena Blood pour le partage et le don de sang, car vous savez plus que moi que euh, le sang, c'est quelque chose de très important. Et dans nos pays, en général, nous faisons face plus souvent à des accidents, des, euh, des problèmes qui peuvent survenir. Et il y a plutôt, il y a de tout temps euh, des manquements dans ce sens. Et lui, en tant que visionnaire, en tant que patriote et un grand humanitaire, il a cessé d'œuvrer en ce sens, en créant des projets, en organisant des journées de dons de sang et en faisant tout son possible pour que le besoin soit satisfait. Et c'est dans ce sens aussi que Imam Mohamed Nias a saisi cette occasion pour s'allier avec lui, en tout cas pour pouvoir faire de son mieux pour que tous les mots rencontrer par les humains, par les citoyens, qu'il puissent être assouvis. Donc en tout cas, nous, ne faisons que remercier Imam Mohamed Nias de nous avoir conviés à cet événement et nous prions pour lui, en tout cas pour que Dieu lui donne longue vie et santé et qu'il puisse en tout cas mener à bien son projet, Inch'Allah. مطارا تركب السفينة وقد الجم نصرا وعلوه غرقوا ورتنا على القليل مكتتما تجول فيها ولست تحترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا تبق وتحتوى بيتك المهيمن من عند فعلها تحت نطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاد بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق اللهم إنا نسألك بجاه ممدوع عندك والمادح أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد آمين آمين يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتع له أخلاق يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتعله له أخلاقه أيروم مخلوق ثناك بعدما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 فمن كان أو من ذا يكون كأحمد نظاما للحق أو نكالا للملحد أقر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان يلوه ويشهد وضم إله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في قمس وازن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد تغدي به ناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جل ليلة الظلم وفي عطافي أو أثناء بردته ما علم الله من خير ومن كرم إن رسول لسيف يصدع به مهند من سيوف الله مسلول وأبيض يستسغى الغمام بوجهه ثمال اليتامى اسمة للأرامل يلوز به أولاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن في غير منقسم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 فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه خير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل طرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يا من تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي مسا قد ومن له الحسنى فقد محمد الهادي الذي عليه جبريل وهبت محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فاتحيته للبديع جار براءة الاستهلال ومن خاتميته براءة المختم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بعر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود وسبب في كل موجود أين عيان قرق المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لا دون علمك صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا وعن والدنا وعن أزواجنا وزرياتنا يا رب العالمين آمين لي سادة من عزهم أقدامهم فوق إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز وجاء فبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واغتم لنا بالخيرية من لا لنا رب سوى تنيات ربيعي بمرعتي شبيعي بمنطق البديع أبقي بها محمد بل تنيات ربيعي بمدحتي الشفيعي بمنطق البديع أغبي بها مؤملي يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات العلا بإذن ربي العلا تنية ربيعي بمدحتي شفيعي بمنطق البديع أغبي بيا مؤملي أهلا بشار مولدي شار العلا وسددي شار النبي أحمدي شار ربيع الأول تنية ربيعي بمدحتي شفيعي بمنطق البديع أبب يا مؤملي قد قص بي ربيعي إذ كان كربيعي لأرض وشفيعي بكل قاد من معدلي تنيعة ربيعي بمتحد الشفيعي بمنطق البديع أبب يا مؤملي أنا بشار الفرح شار ذهاب طرحي وفخرنا والمراحي شهر النبي الأفضل تنيئة الربيع بمدحة الشفيع بمنطق البديع أقبي يا مؤمل شهر الفلاح والسرور شهر به سادة دحور موشع بين شهور متوج مكلل تنئة الربيع بمدحة الشفيع بمنطق البديع أقبي بيا مؤملا أهلا بشار الفاتح إغلق كون الفاتح من خص بالفواتح وحدقات بملل تنئة الربيع بمدحة الشفيع بمنطقنا بديع أقضي يا مؤمل أهلا بشار الخاتم شار نبي قاسم وفاتح وخاتم واخر واول تنية الربيع بمدحة الشفيع بمنطق الابد أقضي بيا مؤمل اهلا بشار الناصري للحق شار الامري بالعرف شعر ظاهري بكل وصف أكملتني أتو الربيعي بمدحة الشفيع بمنطق لا بديع أقبي يا مؤملي أهلا بشار الهادي لمنهجي رشادي وقاعد وحادي إلى الطريق الأمثل أتو الربيع بمدحة الشفيع بمنطق لا بديع حبيبي يا مؤمل أهلا بشار سيدي لأحمر وأسود من حاد سبق سددي يوم اعتذار الرسل ثنيعة الربيع بمدحة الشفيع بمنطق لابتي أقبي بيا مؤمل وقد كفى كلها أعباها وكلها بقوله أنا لا عند اشتداد وجليتني التربيعي بمدحتي الشفيعي لا بدي أخفي يا مؤمل فيا لها من خطة جوابه في الحطة من ربي سل تعتى واشفع لدينا أتور التربيعي بمدحتي الشفيعي لا بدي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 شارع عظيم الخلق في المحكم المنزل تنعة ربيعي بمدحتي الشفيعي بمنطقي لا بدي أقربي يا مؤملي شعر الذي آثاره إله واختاره من حبه خيره عند القضاء لأجل تنيات ربيعي بمدحة الشفيعي بمنطقنا بديع أخبي بيا مؤملي شعر الذي مساقت ومن له الحسنى فقط علي جبر وأباد بكل نور معتلي تنيات الربيع بمدحة الشفيع بملتقي الأبدي أقبي بيا مؤملي أهلا بالليل 12 في ويوم الآخر وطيب ذلك السحر ونور أفق جليتني أتور ربيعي بمسحتي الشفيعي بمنطق بديع أقبي يا مؤملي أهلا بكل ما ظهر من خارق يعي الفكر في كرافه البصر إلى مقام العلي اتور ربيعي بمسحتي الشفيعي بمنطق بديع أقب يا مؤملي وما رأت من عجب آمنة حين نصب سبابة ثم اغترى بسجدة مبتهلة تنعت ربيعي بمدحة الشفيع بمنطق لا بديع أقلبي يا مؤملي كما تدل الزهر كما ترى القصر فيه وحل الكسر بصنم مجدد تنية الربيع بمدحة الشفيع بمنطقنا بديع أقضي يا مؤملي وقادت البحار وجفت الأنهار من أجله والنار قد طفئت من خجل تنعة الربيع بمدحة الشفيع بمنطق الأبد أقض يا مؤملي وجن في النكد لرميها بالرصد وعزلها عن مقعدي من أجل خير الرسل تنعة الربيع بمدحة الشفيع بمنطق الأبد أقض يا مؤملي ورنتي شيطاني جرى عظيم الشان من أوضح البرهان لعدم ما يبطلي تنيعة ربيعي بمسحة الشفيعي بمنطق لا بديع أخي بيا مؤملي قد من ذو الإفضال بأفضل الرجال في أفضل الليالي بالبلد المفضل تنيعة الربيع بمدحة الشفيع بمنطق لا بديع أقبي بيا مؤملي أهلا بيوم عيدي ما مثله من عيدي قد حل في المولود في محل زحل تنيعة الربيع بمسحة الشفيع بمنطق أقضي يا مؤملي وسابع الولادة وما أتاه سادا من وفق ما أراد إله في الأزل دنيا ربيعي بمسحة الشفيع بمنطق أقضي يا مؤملي أهلا بيوم اسمي محمدا خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جده لينجلي ثانية الربيعي بمدحة الشفيعي بمنتقل بديعي يا مؤملي بحمد الأولين الأول آخرين فكان ذا يقينا من الكريم المفضل تنية الربيعي بمدحة الشفيعي بمنتقل بديعي يا مؤملي أهلا بيوم اثنين مولد ثاني اثنين مبعث سر الكون مقدمه المبشر تنعت الربيع بمدحة الشفيع بمنطق البديع أحبب يا محمد أكرم بشار العجمي إبريل شار الكرم أكرم بأرض الحرم مولد خير مسلم تنعت الربيع بمدحة الشفيع بمدح البديع أحبب يا محمد أكرم بيوم صار عشني روزت نارا لمن حوى الفخار وكفرة بمنزله تنعت الربيع بمدحة الشفيع بمنطق البديع أقبي يا مؤمل أكرم بشار إنسان مولد خير إنسان قدوة أهل الإحسان والكامل المكمل تنعت الربيع بمدحة الشفيع بمنطق البديع أقبي يا مؤمل قد تمت اللالي في عدة الليالي بزينة المال كالجوهر المفصل تنعت الربيع بمدحة الشبيب بمنطق لا بديع أقلب يا محمد تنعت ربيعي بمرحة شفيعي بمنطق البديع أبقي يا محمد تنعت ربيعي بمدحة في بمنطق البديع أبقي بيا محمد أبقي بيا الجمع به يوما ونيل قربه وفضل حب ربه ومن رضاه أملي صنعت ربيعي بمدحة شفيعي بمنطق البديع أبقي بيا محمد والختم لي بالحسنى والجمع لي في الحسنى لدى المقر الأسنى مع الرفيق الأفضل سمعت ربيعي بمدحة شفيعي بمنطق البديع أحمد يا وكلنا وكن لنا وليا وناصرا حفيا لا نقتشي غويا بجاي عبدك العلي تنية ربيعي بمدحتي شفيعي بمنطق وكلنا وليا وناصرا حفيا لا نغتشي غويا بجاي عبدك العلي تور ربنا بنفحة شفيعية بمنطق البديع أقلب يا مؤمل وكلنا وليا وناصرا حفيا لا نغتشي غويا بجاي عبدك العلي تنيات الربيع بمدحة الشفيع المنطق البديع أقف يا محمد صلى وسلم إلى عليه أفضل الصلاة ما دام كونه الإله من أبد لأزل تنية الربيع بمدحة الشفيع بمنطق البديع أقف يا محمد وآله وصحبه وزوجه وحبه حسبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل ثنية ربيعي بمسحة الشميع بمتق البديع يا محمد وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل ثنية ربيع بمدحة الشفيع بمنطق بديع ببيا مؤملي جامعها إلى يغفر لناظمها واسمع لقارئها وللذي حضر وهم بغفي لطف وكفهم نوائب الدار ما فاته الكدر أجب دعاهم وأجل بالذي طلبوا بجاه أحمد ما أصاب الخير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق من الحق والهادي ناصراتك المستقيم وعلى آه يا قدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما هلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما هلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالعقل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى هادي قدر مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين imaam nee na muy ndokkoon mawlud bi ñu doon jàng. si mawlud bi ñu doon jàng. si weeru yonent bi sallallahu si weeru sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi jiital ci ndokkeel bi. maa ngi muy ndokkal bu baax nee na. maa ngi jiital ci ndokkal bi. maa ngi jiite si ndokkal bi. sëti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu teew ak ñun. sëti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu teew ak ñun. maa ngi ndokkeel mboolem xalifa généraux yi ci réew mi. Mm, nee na muy ndokkeel mboolem xalifa généraux yi nekk si si réew mi. nga xam ne ñoom ñoo tax ñu xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moo tax moo ñoom ñoo tax ñu xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi maa ngi ndokkeel mbooleem xalifa généraux yi ci àdduna bi. rawatina fii ci Sénégal. rawatina fii ci Sénégal. nga xam ne ay kënu diine lañ. nga xam lañu. te ñoo sàmm. mbëggeel gi nga xam ne. mag ñu baax ñi. bëggoon nañu ko yonent bi. bëggoon ñoom ñu koy garder ba léegi. maa ngi leen di ndokkeel ñoom ñëpp jiital suñu khalifa di ci jiital suñu xalifa. Ibrahima Niass. nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima nga Maulana Cheikh ngi al imaamul akbar Cheikh Tidiane Alioune Cissé. maa ngi ndokkeel porte parole pays bi Cheikh Mahi Cissé. maa ngi porte parole pays bi Cheikh Mahi Cissé. ngi Lamine ibrahim Niass. maa ngi ndokkeel Lamine ibrahim Niass. wakiilu daadin nga xam ne moo représenté xalifa bi fii ci Dakar. nga xam ne moo représenté xalifa bi fii ci Dakar. maa ngi ndokkeel waa Touba. maa ngi ndokkeel waa Touba. maa ngi ndokkeel waa Tiwaawan. maa ngi ndokkeel Canaba. maa ngi ndokkeel Omariyan. maa ngi ndokkeel Laayeen fii. maa ngi ndokkeel Xaadiri. maa ngi ndokkeel Xaadiri. nga xam ne seen xalifa bi yónnee na ndaw ma nga ne toog. nga xam ne seen xalifa bi yónnee na ndaw ma nga ne toog. maa ngi jagleel nuyoo ak sant. maa ngi jagleel nuyoo ak sant. surafaa yi nga xam ne jóge nañu ba bare na nga xam ne ay alawiyun lan ñëw fekke bés bi maa ngi ndokkeel sama xarit Chérif nga xam ni yàgg na ak man nekk nit ku baax maa ngi ndokkeel sama mag sama xarit sama conseil Cheikh Ibrahima Bitey membre fondateur nga xam ni moom membre fondateur la ci jumaa ji. lu nu fiy doxal rek. loxo ma ngi ci biir. maa ngi ndokkeel ustaas yi ñëw. maa ngi ndokkeel asatise yi ñëw. ustaas di ñu ci jiital ñun. di ñu bëggee. di ñaan yàlla mu may la ndam. di ñaan yàlla mu may ñu ndam. ci liggéey bi nu nekk. di ndokkeel ustaas yi ma nekkal ustaas Xasan. di ndokkeel ustaas yi ma nekkal ustaas Xasan. borom daara yi nga xam ak borom daara yi nga xam ne ñoo ñëw fekkee ci bés bi. ndokkeel sama xarit Papis. maa ngi ndokkeel sama xarit Papis. ak délégation bi mu àndal. ak délégation bi mu gis ngeen excellence ni mu ko waxee. gis ngeen son excellence léegi zos ni mu ko waxee. li mu nekk di ko liggéey. ak li mu nekk di ko liggéey. yàlla may ko lépp rek yàlla na ko ci yàlla may ndam. ànd ak xaritam bu tedd moom it mu ne ci ndeyjooram. ñëw ànd ak xaritam mu ne ci ndeyjooram. macha allah ñu ngi leen ndokkeel yéen ñu ngi leen di ndokkeel yéen ñëpp. di ndokkeel daara ji. di ndokkeel quartier bi kaddu yu gàtt la woon rek. lii kaddu yu gàtt la woon rek. ngir ñu mën a jublu ci xéwal yi. maa ngi ndokkeel suñu papa Seydina Omar Sanabaloo. maa ngi ndokkeel suñu papa Seydina Omar Sanabaloo. mooy président Matlabul nga xam ne mooy président wu Matlabul Fawzeyni. teew ànd ak ñun. teew ànd ak ñun. maa ngi ndokkeel ñi nga xam ne ñëpp tamit. maa ngi ndokkeel ñi nga xam ni ñëpp tamit. bi gàmm gi dëgmalee ba léegi. bi gàmm gi dëgmalee ba léegi. gis naa ni seen loxo ñëw na ci man. gis naa ni seen loxo ñëw na ci man. nag ca Medina. maa ngi jiital ci nuyoo bi. maa ngi jiital ci nuyoo bi. ak ci ndokkeel gi ak ci ndokkeel gi. son excellence président de la république. son excellence président de la république. chef Macky Sall. ma euh, chef Macky Sall. nga xam ne moo jiite Sénégal. nga xam ni moo jiite Sénégal. nga xam ne bëgg nuyu Sénégal yëpp tey. nga xam ne tey ku bëgg nuyu Sénégal gi yëpp. moom ngay jox loxo moom ngay jox loxo. ko ñaanal yàlla ci bi ko ñaanal yàlla ci tukki bi mu nekk. mu ñëw ci jàmm mu ñëw ci jàmm. indaale ndam indaale ndam. yàlla may ko fit yàlla may ko fit. yàlla may ko xam-xam. yàlla may ko kaaraange. moom ak gouvernement bi yëpp. maa ngi koy ñaanal ndax sama président la. maa ngi koy ñaanal ndax sama président la. maa ngi koy ñaanal ndax moom sama président la. maa ngi koy ñaanal ndax moo téye Sénégal. maa ngi koy ñaanal ndax moo téye Sénégal. maa ngi koy bëgg Sénégal yi am ndam. maa ngi koy bi nga xam mission bi nga xam ne. yàlla la neex yàlla la neex. mu tege ci loxoom mu tege ci loxoom. kon yàlla na yàlla may ko ndam. kon yàlla na yàlla may ko ndam. ci mission boobu. yàlla na nu yàlla may réew moo xam ne. bien-être lay nekk. bien-être lay nekk. ñun ñëpp ak ñoom ñëpp dañ ci gis seen bopp. Serigne Seck Serigne képp koo xam ne képp koo xam ni Sénégal nga nekk. da nga yëg ni. da nga yëg ni. maa ngi dund ci réew moo xam ni. maa ngi dund ci réew moo xam ni. effectivement sama réew la effectivement ngi ndokkeel Amadou Ba. maa ñaanal yàlla. Euh, ndax barab bi barabam ndax barab na ci barab teraangaam ngi ndokkeel Samuel Sarr. ci teraanga yi nga xam def na ci bés bi def ngi ndokkeel directeur banque islamique. maa ngi ndokkeel directeur banque islamique bu almadi di cheikh Ababacar nga xam ne démb ñëw na fi indaale fi teraanga yu bare bari maa ngi ndokkeel monsieur le ndax avant ñuy julli yónni na délégation mu ñëw ki topp ci mairie bi ba ci suuf. ki topp ci mairie bi ba ci suuf. ñëw indaale ay teraanga. ñëw indaale ay teraanga. maa ngi leen di ndokkeel. di leen ñaanal yàlla. di leen ñaanal yàlla. maa ngi ndokkeel Mouhamadou Moustapha Diagne. maa ngi ndokkeel Mouhamadou Moustapha Diagne bu. bu éducation nationale bu éducation nationale. nga xam ni démb yónnee na fi teraanga yu bare bari. maa ngi ndokkeel ñi nga xam ne ñëpp. def nañu seen loxo ci bés bi. ginnaaw bu ma fàttee mën naa am ma fàtte waaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla lu ñu def ren yàlla nañu ko mën déwén yàlla may leen ndam maa ngi ndokkeel sama jigéen ah, soxna Abi Badiane nga xam ni démb moom it nee na teraanga ju rëy rëy ko dimbalee def ma koo dimbalee ci bés bi. di ko ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla mu barkeel ko. barkeel njabootam. barkeel njabootam. defal ko ndam. defal ko ndam. defal ko tawfiix. defal ko tawfiix. maa ngi tëj sama kaddu. maa ngi tëj sama kaddu. di ndokkeel première dame. di ndokkeel première dame. soxna Mayram Faye Sall. moom laa parrainé xale yi mooy seen yaay. nga xam ni xale yi moom laa ko parrainé ndax mooy seen yaay. waxtu nekk. waxtu nekk. man leen yaay di nemmeeku. moom mu ngi leen di nemmeeku. di xool ci liñ nekk. di xool ci liñ nekk. di ko ñaanal yàlla la mu dëgëral ko. di ndokkeel excellence bu Gambie. di ndokkeel son excellence bu Gambie. fii la jullee ak ñun. fii la jullee ak ñun. def ay teraanga. maa ngi ndokkeel Adja Ndeye Kati Gajaga. maa ngi ndokkeel Adja Ndeye Kati Gajaga. madame Thiam madame nga xam ne entretien daara ji yëpp moo ko nga xam ne entretien daara ji yëpp moo ko téye. ndokkeel président Mouhamed Diallo. maa ngi ndokkeel président Mouhamed Diallo. Euh, maa ngi ndokkeel soxna Adja Matilo. maa ngi ndokkeel soxna Adja Matilo. nga xam ne xale yëpp xam nañ ko. nga xam ne tey jii xale yëpp xam nañu ko. entretien daara ji. entretien daara ji. ndimbali ak ndimbali. lekk yi ak lekk yi ak naan yi. macha lépp ngi ñëw macha allah lépp maa ngi ndokkeel sama xarit Papis maa ngi ndokkeel sama xarit Papis euh, maa ngi ndokkeel monsieur le maire Sall. maa ngi ndokkeel monsieur le Sall. maa ngi ndokkeel képp koo xam ni. soppe yonent bi nga sallallahu alayhi wa sallam. te def nga ci bés bi. ñaan yàlla mu may ñu ndam. may ñu tawfiix. may ñu jàmm la. may may nu jàmm joo xamante ni jàmm la. ñoo ngi jublu ci ay élection ñoo ngi ñaan yàlla. Ah, ki nga xam ne moo jiite réew mi. nga xam ne moo jiite réew mi. yàlla na yàlla may ko ndam. ndax réew mi réewam la. yàlla bu fi benn yëngatu am yal na fi jàmm am yal na fi wërsëg am yal na fi naataange am yal na ñu nekk exemplaire yu mag ci àdduna bi